to 1,000 evens. And before we go, a reminder of our headlines. A delegation comprising various women groups today commiserated with the first family on the demise of Her Excellency Madam Zainab Yahya Jammeh's mother. The flow of campaign donations from APRC militants and admirers of the party leader's track record is continuing terror attacks allegedly committed by the Boko Haram Islamist group in Nigeria are claiming casualties. An emergency crews in Turkey are uh, racing against the clock to rescue people buried under rubble during following Wednesday's earthquake. You can also follow that story and other GRTS programs live on www.grts.gm. There you can also monitor GRTS radio live. That's all in the news. Thank you very much for your time and Unilenla is next.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 مَّسْنُونٍ بِشَيْءٍ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين Assalamualaikum, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, adimma min mo kalifoti gambe sara min kede alhaji mouhamadou bakusa kontati anin morkeba fon kotoma min kede pakari kontati anin konte kunda alfal ana dimbal be wala lafta ñin kibaro fudan la banko président wala min kede his excellence de cheikh professeur alhaji docteur yahya ejeje jame ala mansa kunda anila talibol min be banko kan anin banko e bantala ko e ka sango san siare min ke morkeba de asitale koñin ñiŋ nala luŋ naa la miŋ be kela ñiŋ karoo tili taŋ niŋ fuloo ti walla be kela alkurani karaŋo ti aniŋ karaŋo ñiŋ be kumaasi la somanda a somo miŋ be kela dimaasoo ti miŋ be kela karoo tili tan nin saboo ti i be kela moori min be kumaasi la talaŋ fula kata fo talan wooro ala baraka Eu me waaye xaw ma ñaata lañ ko wécci si marché bi bul amati benn jaaxle ndax qsal asil na la q currency léegi ak sa qsal line bi di nga mën a yónnee sms pour xam ñaata la ñoo jëndee wala jaayee dollar bi pound sterling bi euro CFA ak xaalis yi yeneen dëkk yi ci àdduna bi yónneel blank sms wala CURA si 422 pour nga jot exchange rate si major currency si si àdduna bi QCurrency dina la wax ñaata la benn xaalis di wéccee si beneen visit our website www.qcell.gm or call customer care on 111 for more information. QCell, Sunyibos, the only 3G plus network in the Gambia. Assalamu alaikum bokay ñoo sétane ñu ngi leen di nuyu di leen sargalati ci programme bi mu di ñu ni neen la bés bu ay bele nag gisoon ngeen waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ko doon def mu aju ci yi nga xam ne moom la suñu ndaw yi di jëfoo te ñu gis ne daal jar nañu waxtaanee ko balaa moo indi yaaxute ci ñoom euh, looloo tax nag tey ñu fas yéene jekkali waxtaan wi tey euh, jëlee ko fi nga xam ne foofa lañ ko emale woon ca bés bu ay bëli ñu gërëm leen bu baax nag li ngeen ñu toppa ci programme yi ñu ne neen la gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo sponsor programme bi muy gaay kiwsel yi gërëm i tamit ki nga xam ne moo di Atta Diallo Diop borom Atta's boutique nekk fële ci 97 Atlantic Road ñu ko gërëm bu baax ci li nga xam ne mu ñoo solal ci programme yi ñu ne neen la bon nag duñ def dara lu mooy topp waxtaan wi. maa ngi tudd Adama Dramé from Gambia Senior Secondary School. Euh, maa ngeen nuyu tamit suma principal bi from Saint Teresa si wax ju rafet yi ak képp koo xam ne contribute nga one way or the other towards the success of this programme anti aida programme bi am na solo torop si xale yi dañ ne fecci liir bala moo ne fekkandee jëttee ci ndëga gi su ci téyutee kon dara du du sotti anti aida nga gis ne suma papa su waroon use eh, sàngara yii nii mu war maa yónni Mhm. anti Aida damaa foog ne lu baax la moo def. Mhm. damaa end up di def the same thing lu moo def even worse than it. Mhm. su élega si biir ñu naan ma man la man la te du man de suma fo bi la. xale yi xamuñ dara. yaay ñoo leen war a consult ñu wax ne ban yoon nañ war a jaar. lu si topp mooy xale yu bari xale yu bëri seen yaay dañ leen di abuse si lunch ñu leen a jox. xale bu ndaw nga jox ko 25 dalasi si primary school. every day li mu ngi jar 3 dalasi. xale da nga ko jox lekk ba mu lekk ba mu suur mm-hmm. nga jox ko mu dem school waaye xale yi dañu dañ leen naa jox loñ di leen jox di leen jox su ma gisee suma xale di ko jina dama ko jina ndek am naa xaalis bi mm-hmm. lu si toppa mooy yaay yu lay eh, parents yu lay ñëw si school si anti ayda buñ ibee schools da nga gis ne three ninety five percent of the parents are women anti ayda benn góor ngaa gis wala ñaari góor te yaay gu yaay ju nekk mi ngi am doom yu bari si kër mi ngi war a dem marché mi ngi war a tooga naka la mu ñëwee every time di seet xale bi su lu mu nekk ana papa yi ñun dañ nit papa yi ñu ñoo ñu ñu ñu ñoo saagal di seet suñu nekk yow da xale bi dafaa ñëw school yaay ba ko bàyyi si kër ga euh, mi ngi bàyyi yaayam si kër mu ngi ñëw school pour jànga su wàccee school dem na yaay bi du am jot bi du ñëw seet xale bi su lu mu nekk anti ayra mm-hmm. loolu tam parents si war nañ see seet lu baax may eh, gàcce ngaalama jigéeni Gambia yi tamit ci loolu si next thing bi mooy butéel yi anti aida soo gisee butéel yi da ne lii juice la wala lemonade wala wonjo xale yu ndaw duñu xam ne lii sàngara la soo gisee beneen sachet eh, yi tamit si packet bi am na juice yoo xam ne tam di same thing nañ leen paagee su ma demee si bitik bi gis tam keneen ko jënda dama ko jënda foog ne juus la su ma ko mosee tamit mu nee dinaa trayaat xam ma ne mi ngi xam suma health bi te du dara tamit mi ngi affect suma health bi si boppam waaye man du ko xam because man ko gis nit yaa ngi ko jëfandikoo mm-hmm. the next thing mooy anti aidam may ñaan social welfare bi comme lu ko waa ji waxee buñ toog xaar xale yi ñuy dem si ñoom nañ wóor kër yi waxaay waajur yi waxaa xale yi si luñ war a def ñun xamuñ dara dañoo nekk di teeta rek suñu wonte yoon bu ñoo jaar dañoo misli di dem fu nekk anti ayda mm-hmm. léegi ñu ngi ñoo bileem ñu ñoo lii xale yi wax xale yi waaye parents tamit dañu war a bàyyi seen xel saxatuma laa papa yi maa ngi eh, jërëjëf lu ba pare di jégalu su fekkee wax naa kàddu boo xam ne waruma ko war a wax